maraboutique, financière, tout le monde fait pression sur les juges. Je me souviens, il y a une trentaine d'années, je suis entré dans le bureau d'un procureur mu won ma benn lettre boo xam benn kilifa diine moo ko bind ko trafiquant de drogue bii nga jàpp sama taalibe la dama lay ñaan nga bàyyi ko alors il m'a montré la lettre il se marrait pour dire façon pression yi ñuy subir c'est pas comme euh, dans certains pays occidentaux où le juge bon pratiquement mais ci àddina bi yëpp nag am na ay mhm. pression sur les juges maintenant capacité de résistance juge yooyu contre ces pressions loolu la ñuy wax indépendance